ndax nag ci nga bokk taxuñu cee bokk dañu cee bokk waaye yow it njaboot ga sa njaboot lañ e, kilifa ya nee nañ def nga li war waaye est-ce que monsieur le ministre foofu la ñu war a yem ma je pense que ci yi changement lañu ñu toll ak yokk li nga xamante ne moom mooy nappa gi kon jàpp naa ni su fekkente ne war nañu mën a équiper ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem géej di géti ay waxuma sax ay gilet de sauvetage parce que loolu c'est minimum mais quand ñu mun leen utal ay localisation GPS yoo xamante ne day nangu ndox di nangu yeneen yi pour bu ñu réeree am fu ñu mën a gindikoo euh, kaaw am na ku ne wax dëgg yàlla ñoom ñi ngi am yaakaar ni seen njaboot yooyu ñi ngi biir géej faatooguñu waaye rien la di donc dañ lay ñaan nga poursuivre recherche yi parce que juróom-benni bakkan lañu yu des ci géej gi ñu bëgg a xam tamit yan position nga jël ak sa ministère ak say collaborateurs ci li xew bër ki démb ay xale yu ndaw ay jànq yu tuuti ah, jël yoonu géej gi dem ba des fa ñu toll ci presque fukk ak ndàngam koo ci gis amul vingt 23 ans loolu euh, damay jàpp ni politique d'emploi bu échoué la mais aussi manque de surveillance suñu côté yi la parce que ñooñu suñu mënee génn fii di ay xale yu jigéen koo ci gis pantalon ba mu sol wër na yàlla xinanti bi xale yu tuuti soo leen xoolee nga jur doom yi toll ni ñoom sa yaram dafay daw naka la ñuy def ba mën a protéger suñu côte yi ba nga xamante ne xale yooyu dootuñu mën a embarquer loolu aussi am ngeen ci part de responsabilité ñuy wax ni euh, fu ñu mën a nekk ci àdduna dañuy soxlee jën dañuy soxla leneen ci lu dugg ci géej mais monsieur le ministre caare géej dafa jege lool mi ngi nii sama ginnaaw fa laa fa laay jóge ma jàpp ne démb waa caare géej dañu wax ni yow am nañ ci yow yaakaar bu baax a baax a baax ci sa taxawaay seen njaboot waaye waa caare géej nee nañu li nga xamante ne moo daan am mbaa yow doo ko xalaat seet yenn géej yi jox leen cent cinquante motooru gaal yow nga ñëw caare géej jox leen 10 moteuru gaal te naan muñ leen napp ga du fa mës a soqaliku engrais bi bëgg nañ ci bëgg nañoo yokku bëgg nañoo am li nga xamante ni mooy géej yu am mag yi am muy sumba ju nag yu mel noonu ba nga xamante ni ñun ñi nga xamante ni ñoo dëkk si banlieue bi bu ñu bëggatee jënd jën dem caare géej taxaw ñu napp jaay ñu ci instant yi ñu ñëw togg donc monsieur le ministre bëgg nañu nga jàppale waa caare sur bu baax a baax a baax te yaakaar nañ ko ci yow ndax ci yow bokk nga ci ministre yi gën a présent ci fi nga xamante ne moom mooy réseaux sociaux yi ba tey bàyyiwoo say xarit démb yaa ngi tonton teex ñun yaa ngi waxanteex ñun loolu dama si jël témoin sa jarbaat Patrice Sané parce que bërki démb rek post bi ñu def ci yow dang si tontu ba mu jeex parce que maa maa ngi lay tooñ naan la Alioune Ndoye tubaab ñëw na Paris mais loolu yow yaa ñëw tontul ko sa bopp xale yi dëkk bii nag ku leen weg ñu weg la ku leen wegul duñ la weg monsieur le ministre change pas yàlla na la yàlla defal jàmm ñëpp a ngi lay accompagner monsieur le président je vous remercie.